asalaamaaleykum mbooloo mi maa leen sant leen gërëm ci wuy si yéen ñu wuy si sunu xol sedd na lool ci li nga xamante ne moom ngeen def ñoo ngi leen sant di leen gërëm waaw woote bi nag li ko waral moom mooy démentir li madame Sarr wax yi dafa nekk fii ci quai de pêche bi sonal nu ñun mareyeurs yi fi nekk yëpp ak exportateurs yi léegi nag barki démb sama gaal dafa teer si suba si bi mu teeree ma fekk ci bureau bi mu toog ma woo ko pour mu ñëw daggal nu salubrité bi ma ko wooyee mu jóg ñëw bi mu ñëwee xool jën bi jël température bi jël sama carte mareyeur jël permis de pêche bu gaal gi laaj échantillon nu yëkkati échantillon jox ko mu dem toogaat bureau ma jël jën yi defar ko ba pare yëpp ka ci oto bi ñëw ni ko jox ma certificat bi mu ni ma du ma dagg certificat bi ma ne ka lan moo tax nga ni doo dagg certificat bi tontuwuma ma ne ka nag tontu yow yaa ko moom su la neexee bañ ma tontu wante waroo bañ a dagg certificat bi parce que tous les conditions sont réunies pour nga dagg certificat bi ma ne ko ana échantillon bi ma la joxoon mu ne ma ma nga nee ca table ba ma jël jën bi génn dem bi ma demee jën boobu ba léegi mu ngi ci man mënuma ko jaay ndax amul certificat ba léegi mi ngi ci man ma glacé ma dem toog sama bureau liggéey sama liggéey ba 23 heures ci guddi ma génn di ñibbi sama kër man ak samay employé si laa ko gis mu muuru di dugg si service de pêche bi man ma xoolaat ka ma ni mais kii à cette heure ci lan lay wut si fii ma toog patiente mu dugg dix minutes ma ñëw dugg ci biir fekk ka muy dagg ay salubrité ma ne ko madame Sarr mu ne ma ma ne ko li ngay def nii baaxul corrompu la mu ne ma waroo ma laaj lan laa fi def ma ne ko ma ne ko lan nga fiy def heure bi gis naa li muy def wante ma laaj ko lan nga fiy def heure bi mu ne ma waroo ma laaj lu may def ma ne ko li ngay def ni corrompu la parce que yaa ngi nii di tagg ay salubrité mu ne ma maa tey su ma neexee ma dagg salubrité ci heure bi ma ne que pourtant 17 heures lan la may de 8 heures à 17 heures lan la may pour nga nekk fii liggéey bu dul 17 heures da nga war a ñibbi sa kër heure bi waru la fekk ngay dagg ay salubrité kon corrompu nga ma ne ko corrompu rek ngay def ma ne ko te yow njiit nga fi kilifa nga kon lii waroo ko def fii nii ma ne ko te jigéen nga rawatina. li ngay jël di yóbbul sa njaboot na nekk lu lew mhm. moo nekk li gën ndax li ngay def nii jekkul jaaduwul te rafetul ma ne ko nag àddina mu ne maa ma ne ko lu tere xam ci àddina dafa yàggul te lu waay rend rek sa loxo lay naaj loolu ma lay wax ni bi mu paree ci guddi gi ma wax ko li mu koy wax ba pare ni ko lu waay rend rek sa loxo lay naaj wan ko ginnaaw dem dugg sama oto ñibbi bi may génn di dem mu jóg tëj bunt bi jël téléphone am di vidéo di wax ni ñëw ngi nii di ma agressé ma tourné ni ko ku ñuy agressé doo tala jël vidéo di ko vidéo amul kenn ku ñuy agressé nga tal jël sa téléphone di wax da ngay vidéo kon agression bi ngay wax amul te ñun duñ la agressé si laa demee sama kër à ma grande surprise démb ma xëy si ñëw liggéey sama liggéey ba ci ngoon gi am ku ma woo bi ma wooyee fekk na boobu xawoon naa jàpp sax après ma déplacé wu ñëw mu jox ma ñaari plainte benn bi au nom de Galaye Gaye benn bi au nom de Galaye Sarr mooy sama turando bi ma ko jëlee jotaguma wuy ji ndax suba 11h la à la brigade de Yara ni ma ko jëlee nag avec philosophie ndax ku nekk ci dëgg doo tiit doo ragal xeex bi xeex bi ñuy xeex wax naa waa AMS wax naa waa keef social bu yaraax ni leen su ma desoon ci man kese ultime nit gàllaay dama koy combattre ba madame Sarr jóge fii du début nag à la fin maa ngi koy wax te loolu incha allah ci kattanu sunu borom yàlla dina ma timbali ba loolu dina am soxlawunu soxlawunu mu defal nu benn privilège ñun ay mareyeur lañu am nan carte mareyeur sunu ay gaal la ñu yor am nan licence de pêche sunu ay gaal lan yor am nan permis de pêche te jën bi nga xamante ni ñoo ngi koy indi mu koy inspecté inspecté jën boobu gis na ni jën bu mën a dem fu nekk la ci àddina soxla wunu mu defal nu benn privilège wante na liggéey mu jël lépp mu tekk ci yoon madame Sarr pour mu jox la depuis bi grève bi amee ba léegi ak avant grève pour mu daggal la benn certificat de salubrité somme yi ka mareyeurs yi wala exploitateurs yi di jox pour mu daggal leen ka sax su ma ko waxoon da ngeen di wax ni loolu mënul nekk te jàpp te te jàpp naa ni te te jàpp naa ni te jàpp naa ni te jàpp naa ni nit ki ci boppam su fekkee dafa am besoin jënd na ay jënam li mu jënd valeur u 3 millions 4 millions 5 millions teg ci place benn kayit war ko mën a yàqal su ñëwee ci yow kayit boobu pour nga dagal ka kaka parce que mi ngi nekk ci besoin yow waroo ko mën a xot ba ci put pour chantage ka pour rey ka mu lay jox ay cinquante mille francs wala dix mille francs wala vingt mille francs pour nga kay dagal benn sali bi galaay kay ñëwal galaay wasalaam maa ngi leen di sant di leen gërëm maa ngi leen di sant di leen ñu may yéen journaliste yi parce que woote nu wuy la loolu dafa neex trop ñoo ngi leen di sant di leen gërëm ci lii comme moom dafa génn mu dem ci ay média média yi diffusé li mu wax te tegu ko fenn laaluma ko jegewuma ko service de pêche bi muy wax nii danu ko saccagé big moo gën a nekk ci outil de travail a fa nekk big sax laalu ko fa wasalaam jërëjëf salaamaaleykum mbooloo mi. maa leen tudd. maa ngi tudd Modou Morone. maa ngi tudd Modou Morone. di liggéey fii si Yaraax. coow li man fi la ma fekk. yàlla mi dara wul man fi la ma fekk. ndax damaa jéem bay ñibbi man tam. toog sama oto. pour taal. bi ma taalee pare si laa dégg coow li ma fayaat sama oto. ma wàcc. dem xool. gis madame Sarr. di wax moo galaay ñu wettantey baat. nga di ko wax ni ko yow lii ngay def waroo koo def parce que mënuñuy xëy di daggal sali nga lànk ba xaaju guddi jot nga ñëw di daggal leneen sali bi li ngay def te ko fen madame saar ni ko man kenn corrompu ma kenn corrompu ma léegi bi coow li tàmbalee am loolu si buntu bi daal si biir si biir si buntu bi maanaam man ne ko madame saar indi caabi ji man ma tëjal la euh, sa kii bi mu jox ma caabi ji ci ko jël tëjal ko leen lépp amul kenn koo xam ni dóor na ko wala saaga ne ko wala sànni na ko dara. man sama jëm man maa jël caabi madame Sarr tëj bureau yi muy wax yooyu yëpp amul kenn koo xam ne dóor ndox man maa fekk te ku fekkee bakkan lay laaj man maa fekke lii madame Sarr moo ma jox caabi moo ma xamal ne ma bii sax sama caabi dan ma ko àll man ma jël caabi parce que muy ñëw xam naa indiwul caabi parce moo ne ma man bii sama caabi dan ma ko àll caabi ñeneen ñi ñu fiy liggéeyee la mu jox ma caabi ji ma jël tëjal ko bureau yëpp jox ko caabi ji amul saagan saaga xam nga ñun dañoo dàmm saaga saaga nday sax amul ci weccoon tey baat lan oh, am yow dan lay korom dun la korom mais saaga sax amu ci madame Sarr mi ngi yor ay kayit ak kase mi ngi ko yor te diir bi xuloo bi am ba ni mi jeexee yooyu mu yor ma am caabi ji man moo ma ko jox ci loxo ak loxo ma tëjal ko bureau yi jox ko caabeem ni ko demal ñibbi mun ma damay xaar inspecteur moom mu ñëw pour mun yóbbu ma ma ne ko demal nga ñibbi mu ñu day xaar inspecteur si sensé la am benn oto bu weex bu ñëw mu ànd ak moom dem kenn saa kenn dóoru kenn saaga ko yàquñu fi dara dara dara dara man maa fekke jërëjëf sax fu ñu ma woo ma wuyu man maa fekke lii merci beaucoup

On était a euh, hier, le jour du match, on était ici à travailler. On est, euh, ici à 11 on est parti chez, chez lui là-bas au bureau, au pour lui demander de nous procurer notre salubrité. Il, a fait catégorique sans pour autant donner d'informations pour euh, ce, ce, Ensuite, nous avons rien dit, nous sommes rentrés. Nous avons continué notre travail. par cela, on a connu jusqu'à 23 heures l'heure de descente. Car nous, ici, on travaille jusqu'à 20 heures. Après, on fait nos bons. À 23 heures, on descend. À 23 heures, à l'heure de descente, j'ai trouvé mon homonyme. Entrer, on, l'a vu entrer dans le bureau. Quand on l'a vu entrer dans le bureau, mon homonyme est parti chez et a frappé à la porte. En lui disant, Madame Sarr, bon, bonjour, Madame Sarr, on peut se parler. Elle a dit, pourquoi vous me Ensuite, on est rentré. on dit pourquoi tu, tu, tu, procures des salubrités or que quand on, te l'a demandé, tu, tu pas procuré. Il a dit que c'est son affaire, c'est elle qui va le faire. Après, c'est par que mon grand lui a dit que ça, ce sont des de compte. Il ne faut pas le faire. Car quand on travaille, il faut gagner sa vie dignement. Ensuite, elle est sortie, elle a pris son téléphone et elle a filmé en, en disant qu'on m'agresse. Et je lui ai dit, comment on peut t'agresser en te laissant ton téléphone pour nous filmer Nous ne sommes pas des inconnus pour t'agresser. Ensuite, elle a sorti son téléphone, elle a dit qu'il va, qu'il va nous faire des chandails et tout ça. Et je lui ai dit, nous, nous sommes avec Dieu. Et ce qu'on fait là, c'est pour nous tous. Car depuis qu'ils sont en grève, nous avons perdu beaucoup de millions. Beaucoup de millions même. Les exportateurs sont là. Ils peuvent en témoigner. Donc nous n'avons aucun problème avec les infrastructures qui sont là. Que ce soit Madame Sarr, que ce soit une autre. Mais juste, on veut juste travailler. On ne leur demande rien. Juste qu'ils nous procurent les salbidés pour qu'on puisse travailler. Mhm. Les papiers tous. Donc on veut juste travailler. Juste mm nous donnent la paix pour qu'on puisse travailler. Ouais. Mhm. Euh, euh, mhm. euh, à, notre, wow, grande surprise, on a reçu une plainte en disant que Madame Sarr, on l'a agressée. on l'a pris car on sait que nous n'avons rien fait. Mhm. On l'a pris, après, on, on attend. Demain, Inch'Allah, on nous a convoqués à 11h. Il y a des témoins oculaires qui sont là, qui ont vu toute la scène. Donc, on attend demain, Inch'Allah, 11h. Et on a préparé un contre-plainte Car nous sommes dans nos droits. Demander qu'on nous procure notre salubrité. Nous sommes dans nos droits de le demander qu'est-ce qu'il fait jusqu'à cette heure. Car toutes ces infrastructures que vous voyez, c'est payé par nos impôts. Mhm. Donc on a le droit à une personne qui est ici de lui demander qu'est-ce qu'il fait là. Juste sur le fait qu'il nous a refusé la même chose qu'il fait à un heure tardive. Mmh. Okay. Merci beaucoup. Euh, je m'appelle Galaye Sarr, marailleur de Pédiara. Okay. Tur bi Albouri Tine la marailleur exportateur Yoff Mhm. xoolal xoolal euh, mhm. li ko waral. mooy damay damay njëkk a ñaawlu état seetaan bi mu seetaan grève bi am na deux mois état waxu si yaa ngi dégg mu impacté suñu secteur ñun exportateur ak mareyeurs yi bi loolu jubee ñu def délégation dem seeti euh, le DG. le DG interprété ministre ne ko ñii dañu commencé yàqule si la indi réquisition bii ngay gis nii mu réquisitionné ay nit pour ñuy liggéey de huit heures à ay madame Sarr bi ñuy wax ak ay moromam yëpp si lañu bokk si liste ñoom ñu ñaawlu loolu ñoom waa secteur primaire bi ñaawlu loolu ñu def te loolu ñu def dañ leen di wax ne ñun ak ñoom ay naatonga lañ ñoom mënuñu liggéey sans ñun ñun mënuñu liggéey sans ñoom amuñoo ak ñoom benn xaar ma yàlla mais nag grève bi dafa impacté ñun suñu secteur maanaam tey secteur pêche bi la gën a impacté mareyeur bi mënatul jaay jën pêcheur bi bu ñëwee gis nga gaal yaa ngi nele dañuy garer pendant des jours mënuñu sax débarquer parce que délivrer ñu leen seen seen première vente loolu la problème bi bi ñu si jógee ba pare ñu ñëw bi ñu ñëwee ñu réquisitionné leen euh, ku mel ni madame Sarr par exemple tey moom du dagg salubrité au la bu midi jotee day wàcc lan la ko réglementation bi wax dafa war a liggéey ba di heures loolu moo indi problème bi yëpp jàppal bàyyi bi état moo seetaan état la ñuy interpréter ñun mareyeurs yeeg exportateurs yeeg pêcheurs yi mu intervenir le plus rapidement possible parce que secteur u pêche bi tey muy emplois indirect ak direct yëpp lu mu si am amul ku ko mun a créer fii si Sénégal te ñëpp la yóbbu chômage actuellement ñëpp ñu ngi chômage jën bi doxatul mënatul génn mënatuñ ko jaay tu ñu ngi ñu ngi waxaat di jooyluwaat état ne na interpréter surtout ministre de la pêche bi fi nekk actuellement. Mm-hmm. di doog a toog il doit agir devant mm-hmm. ses agences. Mm-hmm. ñu xam fan la problème bi nekk ñu régler ko une bonne fois. parce que sino day juraat leneen lu dul lii. du dégg ñu nag ñooñu nag amuñoo ñoom benn xaar ma yàlla ñoom mënuñoo liggéey sans ñun ñun mënuñoo liggéey sans ñoom loolu mooy problème bi. non bàyyi ma Albouri Tine mareyeur exportateur. waaw waaw xaaral mooy salubrité. de première vente maanaam tey bu jën bi jógee géej ñëw. mareyeur bi amu ko droit jaay fenn tant que délivré wuñu ko certificat de premier vente moom mooy salubrité. mooy loolu moo tax ñu teg fi madame Sarr bii si bureau bi. pour mareyeur bu fi jënd jën mu xool jën bi baax na mu daggal la këyit nga mun ko dem mun ko jaay. loolu mooy problème bi jaajëf jërëjëf. bismillahi rahmaani rahim ñoo ngi nuyu ñëpp ñu fi teew tey kontaan ci seen mobilisation bi te xam ni si li ngeen nekk ni si li ngeen du yéen rekk ko moom Sénégal gépp ko moom ndax lii ngeen di taxawal ak li ngeen di xeex ak li ngeen di xëccoo intérêt national et pour ñu sàmm suñu koom-koomu réew liggéey ñàq jariñu loolu rek moo ñu tax a jóg et moo leen tax a jóg loolu moo tax ñoo ngi ànd ak son excellence Ibrahima Sarr nga xam ni ñëpp ko xam moo yor centrale syndicale confédération démocratique des syndicats libres du Sénégal ñun la syndica national de mareyeurs du Sénégal foofu la ñu affilié avec AMS bi nga xam ni tey jii ñoo woote lii te incha allah ñun ñëpp danoonu boole suñu doole ak syndicaliste yëpp taxawu pour l'intérêt national fii intérêt personnel new fii intérêt national moo ñu tax a jóg et d'autant plus que ñi fi taxaw ñi ñëpp ce sont des opérateurs économiques laa leen mën a woowee ce sont des gens yoo xamee ni état dimbaliwu leen kenn jàppalul leen ay famille lañu ñoo xeexal seen bopp ba toll fii lu ñu am ñoo ko moomal seen bopp nag du ay administrateur rek ay agent technique moo leen di clouer duñ ko nangut te loolu du am donc nag xam naa dana on aura l'occasion de se réunir davantage gën a waxtaanaat pour lii nga xam ne tey moo ñu paralysé mu dagg bés ni tey et pour cela danaa jox son excellence Ibrahima Sarr mu am lu mu si kàddu lu mu si yokk te xam ni il est venu spécialement pour soutenir les mareyeurs les pêcheurs les opérateurs économiques sénégalais ak doomu aadama bu ne boo xam ni liggéey pour jariñoo pour développement Sénégal moo ko tax a jóg merci. yan jéego moom nga def ci ci ci euh, nga xam moom moo jot def nañu jéego depuis ba yëf dooree euh, bind nañu lettre adressé ko intersyndical adressé ko gouvernement di leen économiquement. vous êtes en train de paralyser le pays. Et ce n'est pas normal. Vous êtes nos, nos interlocuteurs. C'est vous qui devez nous encadrer. Nous, nous, nous devons encadrer. Nous, nous devons soutenir. Qui le devons encadrer, soutenir, diapalé, la demee mes looy def Dem yow donc Kon balaa ci ñu jëlé leen fi teg fi ñeneen té mënu ñu leen fi jëlé. Dañ leen teg pour ñu liggéeyal ñu. suñu amee problème bu ñuy régler en interne nañ ko réglé en interne ndax ñoom ñu ngi grève mais ñu ngi fayeeku ay salaire ah te yéen ñii ay weer a ngi liggéeyu leen amuñu xaalis man mi man mi si laa bokk te ñoom ba léegi ñu ngi grève di fayeeku di jël seen avantage c'est inadmissible te te la fayeeku ñun ñoo koy liggéey di fay ay taxes di fay ay impôts kon def nañu jéego wax leen dëgg xëy na nag alhamdulilah que ministre bi commencé nu déglu loolu moo indi suñu mobilisation bii comme que nag commencé nañu déglu dañ leen doon seetaan ndax dafa war ay dagg mu jeex ñoom nag ñu dem seen négocier seen biir ndax ñoom ñooy état ñoo ñuy encadré nañu toppatoo seen bopp ñoo xam seen ay indemnité ñoo xam seen avantage ñu nekk suñu avantage mooy leen liggéey rek mais mais mais ak problème spécifique ak euh, ki ñuy wax euh, l'administratif qui donc. Euh, waaw xam nga réquisition am na am na ay agents yoo xam ne dañuy def grève de zèle ci suuf bañ bañ nangu la ñuy def grève de zèle ci suuf on le sait ñun xeexunoog ñoom parce que ñun nag ñoom ñoo bokk tefes bi ñoom dañ leen fi teg pour ñun joguñu pour xeex ak ñoom mais dëgg su jotee da nga koy wax. waaw dëgg su jotee da nga koy wax newuñu fi pour xeex ñoom parce que ñoom état bi daf leen teg pour ñun te ñun ñoo leen di fay li ñuy laaj ay quittance ak ay lii rek salubrité ak yooyu mais may ñun ko dañ koy fay te loolu seen gafa lay merci te sunu ñaq la seen ñaq la kon nag duñu ay ennemi li xew nag saggante ñoom la ndax tricherie baaxul kuy tricherie na daan la weer naa fekk nag baaxul ku weeru nag yaa yaa njëkk a ñun weeru wunu de ñun dañoo wax dëgg loolu daal moo fi xew li ñuy wax yëpp nag c'est du théâtre seen grève de zèle boobu ñuy def réquisitionné nañ leen nañu def seen liggéey ñun li ñu yor ay produits périssables la ñu yor ay xaalis day jor ay millions la kenn duñu tardeel am nañu sens nag ba daluñu seen kaw alhamdulilah nanu koy fexe mu jeex ak jàmm ñu ànd liggéey te yëfu ñàkk fayda yi may jot a dégg bu mu amati ñoom ay cadre lañu ay intellectuel lañu war ñu bokk ci yooyu. wolof français wolof. Bon, je me présente euh, Ibrahima Sarr, de la Confédération démocratique des syndicats libres CDSL. Centrale syndicale à laquelle sont affiliés les travailleurs du syndicat des marieurs du Sénégal. dirigé par le camarade Doudou Fall, Pape Doudou Fall ici présent. Nous sommes donc venus au nom de la centrale pour apporter notre soutien à nos militants. Les mareyeurs sont membres de notre syndicat ainsi que les pêcheurs. Il faut préciser les choses dès Il y a des secteur formel, il y a des travailleurs du secteur informel. Le secteur informel aussi a le droit de s'organiser en syndicat. et c'est légalement constitué. C'est pourquoi nous sommes venus forte. D'abord, nous disons que nous ne sommes pas d'accord sur n'importe quelle lutte qui paralyse la loi, le, la loi 97-17 portant code la chance en tant que député en Euh, euh, euh, président de la commission de la gestion et du travail à l'Assemblée, cette loi précise bien qu'il y a partout droit de grève, mais la liberté de travail. Les camarades qui sont en grève, ils sont dans leur droit, certainement. Si la loi leur permet d'avoir certaines qui ne sont pas appliquées, ils doivent pouvoir se battre légalement, négocier pour avoir gain de cause. mais la loi ne le permet pas d'empêcher les autres de travailler ni de paralyser le secteur économique vital du pays. C'est pourquoi nous sommes venus, pour clarifier les choses, pour dire que ce que nous souhaitons, c'est que ces camarades-là, qui sont organisés certainement en syndicats, qui connaissent les lois du pays, fassent corps avec les marailleurs et les pêcheurs pour exister parce qu'ils ont les intérêts communs. Plus ils travaillent pour améliorer leur pouvoir d'achat, Tous, ils travaillent pour que l'économie du pays euh, soit maintenue. Tous, ils travaillent pour le bien-être de leur des populations, de leur euh, euh, population, de leur famille et du Sénégal. Donc, ils doivent, en synergie avec les autres travailleurs, quel que soit leur secteur, pour parler le même langage et travailler dans le sens de régler ensemble leurs revendications. Si cela ne peut pas se faire, ils n'ont qu'à leur lutte légalement dans le cadre de ce que la loi leur permet, mais laisser les autres librement travailler et gagner leur vie. C'est pourquoi nous sommes venus prêter même force à ses camarades. Ils ont rencontré une première rencontre, ils ont rencontré le ministre du Travail. Je pense que ça ne doit pas s'arrêter là. Le ministre de la Pêche aussi. Le ministre de la Pêche, ça ne doit pas s'arrêter là. Nous sommes venus pour leur demander pour que demain ou après-demain qu'on fasse une nouvelle rencontre avec le ministre de la Pêche pour qu'on clarifie les choses, qu'on précise comment défendre ceux qui et laisser la liberté à ceux qui veulent aller en grève de négocier leurs droits. Voilà ce que nous voulons. Et ça doit être clair pour qu'on ne dise pas que Ibrahim Sarr il est venu défendre telle euh, partie de travailleurs ou telle catégorie de travailleurs contre telle autre catégorie de travailleurs. Et que nous allons faire monter l'affaire de notre venir ici, nous avons pris langue avec les autorités le Premier ministre, qui va diligenter les choses, et faire en sorte que tous les ministères concernés soient autour d'une table et qu'on règle définitivement cette affaire des mareyeurs et des pêcheurs du Sénégal. Et au-delà même de leur lutte, je pense qu'il faut défendre la mer. Il faut faire de sorte que les licences ne soient pas octroyées à des gens qui ont des bateaux congélateurs, des bateaux d'usine, qui pêchent et qui et exportent et qui, font, des bateaux d'usine en mer, qui ne descendent pas la production ici à terre pour qu'elle soit transformée. Et faire en mer soit protégés, surtout quand ils sont au niveau des frontières. C'est pourquoi nous sommes venus avec le camarade Doudefal pour accompagner les camarades, les soutenir et faire en sorte que leurs droits soient respectés. bon ñu ngi leen nuyu di leen sant di leen gërëm lii camarade Doudou Fall wax moom moo ñu indi ñun centrale syndicale lañu mareyeurs yi seen syndicat dafa affilié ci sous centrale syndicale. moo tax bu ñuy bëree pour ñu mun a change seen condition de vie pour yokk seen am-am pour mun a dund dañu war a nekk seen wet jàppale leen fu leen jàppale nag moo di amul benn liggéeykat ak foo mu ta nekk ngay ne dama am droit grève mais ma tere nit ñi liggéey loolu amul fenn la loi 97 17 bi nga xam ne man bi ma nekkee député en 97 man maa ko rapporté en tant que rapporteur de la commission de la législation du travail dafa ne am na droit de grève mais liberté de travail ba tax na amul kenn ku war a tere nit liggéey nit kii bu fekkee dafa bëgg a liggéey da nga ko war a bàyyi mu liggéey ñi grève nag bu fekkee ne certainement ils sont dans leur nañ jaar fu leen droit may ñu jaar fa négocier fexe ba loolu ñu négocier mu antu te lu gënoon rafet mooy comme que ay liggéeykat lañu ñu itam même bu ñu nekkee secteur informel ay liggéeykat lañu nañu booloo ñoom ñëpp ñu bokk dee bokk bàyyi ku nekk nga défendre sa intérêt pour que Sénégal jëm kanam ñu mën a paralyser ñu bañ a paralyser économie réew mi ñun d'accord ñu kuy grève di nga xam ne dana bafouer législation travail dana tere ay moromam ñu dund dana aussi paralyser économie réew mi ba tax na balaa ñu fi jógee bu ñu fi jógee léegi dinañu jël contact ak premier ministre di jël contact ak ministère concerné yëpp ministre de la pêche ministre du travail pour ñu toog autour d'une table pour ñu régler problème mareyeurs yi ñooy suñu militant régler problème yi parce que war nañ dem ci géej ñu war a leen soutenir war leen sécuriser et ñu fexe ba di bañ joxe ay licence ay yi nga xam ne dañu nekk ci biir géej gi di napp di ko yóbbu duñu ko wàccee fii kenn du ci liggéey loolu yëpp nañu ko fexe ba protéger ko pour jën mun a am mareyeurs yi mun a liggéey ni ñu mun a tedd usines yi mun a fonctionner. loolu moo indi CDSL man en tant que secrétaire général de la confédération démocratique des syndicats libres moo ma indi avec l' ensemble de mes camarades pour ñu mun a défendre mareyeurs yooyu dans leurs